waaw asalaamaaleykum mbokk ni seetaan donc man Alioune Badara Gueye di coordinateur projet d'habitat bi xam ne bi xam ne coopérative d'habitat émergence sociale moo ko taxawal mooy projet bi intégré le programme cent mille logements de l'État donc maa ñëw tey fii sunu la koy bees yi di cité BCEAO ci wetu SDE bi bu Yoff noonu nañu si wàllu programme boobu surtout suñu wàllu projet d'ailleurs ci côté cadre juridique bi ak cadre opérationnel bi cadre juridique bi waxoon naa ni projet bi loi d'orientation bi moo ko tënk mooy la loi 2016 31 du 8 novembre 2016 moo ko tënk moo permettre tey askan bi population bi am possibilité vraiment assoir projet habitat pour jàppale part pour participer ci développement économique social réew mi cadre opérationnel bi waxoon naa ko également moo Euh, le partage d'informations maanaam nit ñi xam de quoi il s'agit lan mooy objectif spécifique du volet social habitat du plan Sénégal émergent ba pare naka la ñuy defee la mobilisation des population autour d'un objectif commun maanaam ñu bokk ay bëgg-bëgg dajaloo waxoon naa ni aussi naka nañu ñuy identifier les catégories socio-professionnelles jëm ci fonctionnaire bi ba ci jaay jaaykatu socc bi jaay jaaykatu jën bi jaaykatu caaf yi waxoon naa ni aussi ñu ñëpp ñu mën a taxaw dajaloo asseoir li ñu naan le financement inclusif d'ailleurs financement inclusif boobu ñu bi ñu ko exécuté moo na permettre tey ñu am ay centaines de millions jënd suñu site suñu ay terrain bien sûr tabax fa suñu ay maison témoin loolu lépp nag pour lan pour intégrer li ñu naan le programme de logement agréé mooy li nga xam ne arrêté C0112 en date du 3 novembre 2016 moo ko andi pour permettre nga vraiment dugg ci cadre promoteur immobilier agréé loolu macha allah. ñu ngi si jublu mooy phase bi nu jëm te loolu nag bu ngeen ko gisee yàgg naa ko wax c'est une première au Sénégal wax dëgg yàlla population bi dajaloo mettre en place un projet pour concrétiser les recommandations du président de la République te loolu vraiment dañ koy euh, rafetlu ci askan bi donc wax naa ko sànq nee na taxaw nañu ay maison témoin maison témoin taxaw na seulement temps yëpp dañ doon xaar salon de l'habitat bi nga xam ne bi ñu ko programmé yàgg na mooy bi ci yàlla fan yi le 10 et le 11 février donc dañu doon xaar au au lendemain du salon yan nouvelle orientation la état bi di jël mais bi ñu ko xoolee jàngat ko gis nañ ni ñun suñu projet nekk na en phase ànd na vraiment c'est en parfaite adéquation en tout cas ak processus bi nga xam ne moom la état bi andi ba léegi lu koy gën a firndeel am na ñoo xam ne. xamuñu fan nañu jógee ak si ay kuréel yu mag la ñëw nañu dem filmer suñu ay maison témoin jël nañ ko dugal ko si internet bi ba fan yi néew am na ñu defaat la même chose andi di seeni 4 x seeni seen kuréel ñëw taxaw dugg ci kër yi filmer ko ni ñoom ñoo amee programme logement sociaux bii nekk Notto Diobass or que programme boobu ñun coopérative d'habitat émergence sociale bu population bi nga xam ne ça regroupe plus de douze mille membre dugal seeni alal ku ci nekk lamb sa poche gëm projet bi gëm sa réew effectivement pour participer ci développement économique social ñoo ñëw taxawal suñu projet foofu ay askan ñëw di ko mbubboo ci loolu ma ci alerter askan bi d'abord diaspora bi surtout ngeen xam fi ngeen dugal seen alal fan la parce que état bi lancé na programme bi ñëpp ngi jóg ñëpp ngi jóg seytaan yeeg samba boog lu nekk ci am ngeen tey def seen àgg c'est très important d'ailleurs sax naa ñëw si yeneen émission bi yeneen émission yi expliquer leen naka ngeen di def ba duñ leen nax ci yenn programme yi ak ku ñëw di leen wax programme yi lan ngeen ko war laaj naa ci ñëw ci yeneen émission yi ñu ngi alerter diaspora ak population nos compatriotes sénégalais d'ici et de la diaspora di alerter également autorités yi si jiital le président de la République son excellence Macky Sall ak le secrétaire général Mohamed Boun Abdallah Dionne ñoom il faut ma leen parce que ñoom ñaar bu dara duloon dara ñoom ñaar ñoo ñu jàppale tout au début du processus loolu nañ ci ñëw si yeneen anam. donc di alerter également le ministre du tourisme ki nga xam ne mooy maire Notto Diobass baax na tamit mu bàyyi xel ci lu mel nii parce que ñu bëri dañoo du mbubboo loo xam ne nu ko parce que li askan bi keese keese keese moo ko moom dara raxu ci di alerter également le ministre du logement donc ñoo ñëpp nag autorité aussi ñu ngi leen di tàllal loxo waa parce que gis nañ ministre du logement vraiment engagement bi mu jël pour vraiment exécuter en tout cas de manière optimale et le programme chef de l'État jug na pour jàppale chef de l'État ci wàll boobu jug na wax yéene bi mu am ci population bi loolu lépp gis nañu directeur général Ousmane Wade tamit taxaw ci taxaw bu am solo donc ñun ñu ngi ci processus boo xam ne incha allah d'ici peu dinañ toog ñu tam teg produit bi nga xam ne dëgg la président moo ko digle waaye nag am na ku mu fi teg muy le ministre du logement avec le directeur général Ousmane Wade donc di wax ni en tout cas ci fan yu dinañ def lu ñaan la réception provisoire parce que dañ ko doon bàyyi salon bi jàll ñu doom si jublu donc loolu dinañ ci ñëw ci kanam bu ko defee bu ñu fa jàllee nag ñu jëm si lu ñaan la cérémonie pour inaugurer maanaam wàllu inauguration bi bu ko defee boobu tamit dinañ ko gën a yaatal askan bi gën gis exactement li nga xam ne moom nañu taxawal vraiment pour vraiment satisfaire en tout cas le besoin prioritaire des population donc di leen gërëm di leen euh, jaajëfal di leen dox